waaw ginnaaw bu ñu masawoo coono sénégalais yi nga xam ne euh, nattu bii nu yàlla teg mu ngi dal seen kaw ndax nattu la boo xam ne mën nañoo wax ni àddina bépp ci kaw àddina bépp la dal ndax gis ngeen ni Niger ak Mali ñoom ñëpp ñi ngi ci situation boobu waaye au delà de l' Afrique gis ngeen ni France fi mu nekk nii ñi ngi dund situation bu difficile ñoom tamit ginnaaw ba ñu leen masawoo coono ñi ngi leen di wax ne gouvernement du Sénégal mi ngi seen wet ndax président la République Eh, wax digal na premier ministre mu digal gouvernement bi ñu fexe ba jël matukaay yépp pour eh, lii nga xam ni moo dal ci kaw population yooyu bañ a metti mettit wu tar moo tax ñu génnee lu toll ci juróom-ñetti milliards waaye it yóbbu tamit ay dund ay yére ay tante pour permettre nit ñi am fu ñu au moins taxawal fa hôpital ne pour

gouvernement bi toujours mi ngi nekk ci wetu population au Sénégal yi ñun nag li ñu bëgg moom mooy ni ko président de la République waxee ñu tàllal wax loxo sénégal yi ne leen ñu dimbali suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo sonn surtout ñu dëkk ca boor boobu te ñu am possibilité yiir fat nit ñi nga xam ne dañoo sonn nekk seen kër yi ndox mi nangu ko euh, te it seen tool yi tamit ndox mi nangu ko nañu leen jàppale dalal leen en attendant que ñuy wut solution en attendant que ndox mi di dellu te ñi ngi ñaan yàlla it yàlla delloo ndox mi balaa yàgg